Euh, Cap Manuel Pa Moussa du ñàkk hmm. yow ah, yow xam nga. Ah, ñoom après nu mu daan demee non maanaam maanaam génn yi maanaam ñu mel noonu bu daan génn xam nga xam nga muy wax sànq daan fekk ñu fa. gisuñu fa daal luy nuru dispositif xam nga ne loolu mënul nekk moom. <laughs> mais mun nañ ko def de telle sorte que waa ah génn du génn du génn kii du génn n'importe du génn de ah, ah, <laughs> mais est-ce que duñ ko banaliser aussi ah waaw c'est c'est plus euh, voilà loolu laa wax sànq bu boobaa ndax am nga ay indice fi yoo mën a jox sama gars yi comme ça ñu xam nañ koy lijjantee euh, lu gaz yi soor nit yi nañ ko yëg nekkoon foofu la soo ko nekk. ma ne <laughs> donc loolu la ah, ñoom ñu dem foofu sax. Ah, ah, pour est buy génn bu dee di forcément dafa war a génn <laughs> Sénégal daal sonal ngeen Sonko bàyyi <laughs> loo yaakaar du génnee noonu. maanaam génn nii yaakaar dañ koy def comme détenu politique yi maanaam mu sol jàllaabeem wala benn yéreem. ni gàddu wala génn ak mbuus yow gis nga fi gars yi daan génn fële mbuus wala du génnee ah, noonu mais man de euh, moo wax de ah. waaw Madiambal waaw man de moom ay mbiram dama ci dul. Euh, ah conseil des ñu waxoon gis nañ ko de. Ah, balaa mu ko wax naa mais bon Madiambal daal a rek. Hmm. mais de toute hmm. euh, man génn Ousmane Sonko ak Diomaye. Hmm. c'est c'est quelque chose de déjà acté donc promulguer loi mu jeex la. jarul jarul jarul kii donc de toute façon. Euh, campagne bi dina leen fekk ci biti wala xam naa gars yi nag campagne bi lañ bëgg a dañuy xaar mu yëngu. Hmm. mais bon euh, campagne yu weeru koor la donc coow du jëpp Sénégal ndox ñu mun tooñ. non parce que euh, non dama dugg léegi ci Facebook bu fekk fa Fatou Baal di ma capturé di ci sama Qatar sa katari Sénégal quoi vraiment jaaxal lañ moom. Fatou moom la xam naa moom la moom mooy def yooyu mais Fatou. maa tey maa tey ah tu fais du Abbas <laughs> Abbas léegi maa tey <laughs> koor gi daf mi mais Pa Moussa ni mu tegalante woo démb démb ñaata minute nga ma waxoon tey nekkoo ci loolu da daa mel waaw ci lañ ah. <laughs> ah dañuy jeexal ni commencé dañoo fi ko jeexal ni. Ah. mu ne la mu ne la xam naa ne da xam naa ne ku ci nekk ci yéen am ngeen ay engagement ndogu ji. Ah. xam naa ko daal waaw waaw ñun ñëpp am nañu ah, engagement ndogu mais ñu jeexal ko rek Pa Moussa. waaw jeexal bi non ci génn bi ci génn bi. <laughs> génn bi c'est-à-dire ni mu teglantoo mooy. agent judiciaire de l'État xëy état na moom désisté na ca lële. Mm-hmm. ah ñu ne ñuy xaar promulgation pour mu génn mu dem. waaw xam nga aussi le lien que les gens font de cette affaire là tamit xaw na ma jaaxal Euh, bii li mu désisté noonu en fait moom moom moo attaqué woon décision wu euh, tribunal d'instance hors classe de Dakar ouais. tribunal qui avait dit par l'intermédiaire de son président Ousmane Racine Thion mm. que ni radiation bi ñu radier Ousmane Sonko des fichiers électoraux c'est illégal nanu ko delloo ci fichier bi mm. que la situation de contumace bi waraloon ñu radier ko cette situation n'existe plus elle est anéantie mm. euh, citer les dispositions pertinentes de du code de procédure pénale mm. qui dit que le contumax est arrêté et il s'est rendu donc il n'y a plus de contumax ju procès boobu dañ koy organiser waat. Hmm. loolu la Ousmane Racine Thior waxoon. waay ne léegi nañ ko dugalaat. Ousmane Sonko en dernier lieu ci euh, fichier électoral bi. Hmm. ñoom ñu attaqué décision boobu pour que Ousmane Sonko reste radié. ñoom attaque boobu lañ désisté. lañ désisté waaw ñoo parce waa loolu dañ ko waroon vidé je pense le 14 bi. waaw te du ñoo ko defoon. waaw ñoo attaqué woon dem hmm. ñoo ci génnaat luñ ci li ci nit di commentaire ñoo def wala boog nga laaj leen ñoom la moo waral ñu def dindi. parce que en fait Ousmane Sonko la mu leen wax déjà président lay déjà justement est-ce ma ne bu amee gel génn nga ne déjà bu amee crispation ci ñoom la Ousmane Sonko yàgg na leen wax ne seen dossier la de yéen a ko sombi yéen a koy naan yéen a ko engagé yéen koy désister boobu ba léegi ci loolu la nekk moom ba léegi ngaangul ñoom ñoo doon def di dindi rek kon donc booy décrisper yow yaa crispé woon sa bopp hmm. ak sa décision bu kenn xamul foo ko teg te du ci lañ sukkandiku ne du ñu woon jox Ousmane Sonko fii su parrainage am hmm. ana ñu tey ñoo defoon ñoo dindiwaat Ousmane Sonko fa mu toog bougé wu fa la mu waxoon génnu ci. fekkuñu ko fa woon na fekkuñu ko fa. nee woon na leen dossier bi <laughs> seen dossier la <laughs> ah, Atepa génnul ne fekk na. waaw fekk na la fekk na Ousmane xaw ma pour waxtaan ak moom. waaw après nag moom téléphone Ousmane moo leen wax ñu désisté. non waxuma loolu waxuma la da nga ne da nga ne génnul waxul. waxul da nga dégg mu wax fekk nañ ko fa. xaaral ma si fekkuñu ko fa tam. fekkuñu ko fan. Cap Manuel no man non non non man li may wax man. maanaam je parle du dossier en question bul ma yóbbu feneen. non non yóbbu ma dossier. waaw léegi bàyyi ko fi ma nekk rek. non nangu déglu ma yokk ñu ko fa. moom mu yokkal na ne fekk ñu ko fa. waaw nga ni ñu ko fa te na fekk nañ ko fa nag. am ñu dem te fekk ñu ko fa tamit waaw am na ñu dem fekk ñu ko am na ñu dem ko fa lan moo waral ngeen di teggi waxu Jibi Gueye Ndiaye. Ah. moom laa téye de man ko de. Ah. ah da ngaa jëlee fii rek ñu jëlee fee. waaw ma <laughs> xaw ma Pape jëlee fii. waaw ñun ñu jëlee fee. waaw léegi yéen fi ngeen jëlee tegu leen fa man doy ma bàyyi te mën nga interroger. dama ah kay jëlal ji bi Ousmane Sonko waxul <laughs> waxluwul retiré wul demandé wul désistement lijjantiwul kenn. Hmm. yéen a defoon seen dossier ba mu saf sap. crispé ko ba mu saf sap. yëngal dëkk bi ba mu saf sab yéen ci génnaat ba mu jeex tàkk. Hmm. di ngeen ko bàyyeeg euh, toogum ngeen mu toog. ñoom ñoo jël seen i pexe dugal ko fee. Hmm. ñoo defaat seen i pexe génne ko fee. lu tax gëmoo ma jàmbal jaañ. li ma wax nii na leen génn tey. man dama euh, lu tax ma koy gëm. non waxuma la ne du génn de. Ah. dama ne la génn beeg. tey tey la fekk fait que vous en faites un man loolu moom moo ma kiiwul. Ah. man mu génn tey mu génn suba mu génn ginnaaw suba mu génn barki démb mu bañ a génn ñoom ñoo defi pexe ba dugal ko fa. Hmm. nañ yi pexe ba génne ko kañ lañ koy génne ñoom seen problème la ndax kañ ki lañ koy dugal laajuñu ko woon. du événement du man pour man ci man. du événement du événement. événement la. Hmm. non man opposant bi gën a siiw Sénégal. arab fépp ci àdduna bi. Mm. mu tas fi ne Covid 19 waxal sa ah, événement la man laa wax du sama événement. waaw waaw da ngaa wax ma ne la bëgg a bi génnewaat ko ko man laa wax. dina ma bàyyi ma wax dina la bàyyi ma wax. nee na événement la bàyyi ko mu leeral. yow déglu ma rek xam nga dafa tontu. waaw dama ne du événement ci man. waaw yow na ne ci man événement la rek. ah d'accord. Ah, waaye bul ma wax loolu nag man tamit sama événement ci man kii kii mais <laughs> dafa poobaru <laughs> ndaxaar nañu ñun dañuy wax lu ñu xalaat alors non je dis. tout ça weesu nga wax looy xalaat. <laughs> weesu nga loolu sax yow. ah ma ne da wax loo xalaat dama. non nan laa ko weesu. ah dangay jox sa xalaat kay. aram yow la ñuy déglu de. ah non j'ai pas compris j'ai pas compris lan. la am. ma ne ko j'ai pas compris lan ngay wax. 48 minutes la am wala wala boog wala boog y a je dois pas lui parler. ma ah non non non. non y a pas de mur parce que. pour man wax ji moo indi wax. Hmm. je dis tout simplement mënul nekk l'opposant le plus populaire. waaw ci Sénégal. Hmm. biti réew moo xam Afrique moo xam ci biti. Hmm. les gens parlent de lui partout. donc kooku suñu taxawee ba yëg ne day génn ñu ne ñu tel jour la ma Madiambal wax ko. c'est un événement c'est un événement. parce que bi muy dugg gis nañu coow li mu indi. ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakken en s'opposant à la décision bi ñu jël pour tëj ko kaso. kon kooku tey bu demee ba fii ñu taxaw ñu taxaw ne dañ koy génne yu bëri yi ñu tegoon ci kawam kenn waxatu ci. Hmm. donc tout simplement euh, dañu décider à un moment téye ne dañ koy génne ben oui. mais faut pas dañ koy dañ koy dañ koy. léegi pour lan non man que tu me demandes lan moo waaw tu me demandes lan moo tax lan moo tax ñu koy génne. je serai kon dans le secret des dieux wala mën nañoo téye rek waxi président li mu ne daal dañoo war a jubboo. man ci war a jàmmoo du ma bàyyi. moom moo doon hmm. xuloo ak boppam nekk ci penc li ne fàng. kenn jeexul man si loolu laa mën a wax. la nga xamante ne ma ngi ca géej ga wala mi ngi ci suuf wala hmm. mi ngi ci leneen. te ma ci wax. Hmm. parce que sama sama ñàkk maanu àggul foofu. ci li ma gis laa wax. su ma taxawee moment boo xamante ne nii décidé nañ ne dañ koy génne loolu laa mën a wax décidé nañ ne dañ koy génne. loolu mënuñu ko wax ba pare ci réew mi te nit ñi duñ ko duñ duñ duñ ne c'est un non événement. Hmm. non c'est faux. Hmm. parce ah, que pendant combien d'années waaw xalaatam la wax waaw xalaatam la wax pendant combien d'années pendant combien d'années man déglootuma la sax maa wax ak Pa dama am discipline wax ak moom te duma la aat interpellé waat ci li nga comme li nga wax dégg naa la pendant combien d'années ñu ngi wax ci ku tudd Ousmane Sonko sa à dire les gens ne se pas benn matin hmm. te doo ko gis ci actualité moo xam nga jël quotidien yi hmm. moo xam nga seetaan tele moo xam nga déglu rajo moo xam nga xool site internet hmm. dem na ci ba euh, da ngay ne quelque part si les gens ne parlent de lui mm. du ñu am benn visibilité visibilité loolu man la sama xalaat la. may ma ma jël ngóone ma ñëw ci yow comme ça moom it wax ñu parce moom mooy topp caravane bi.